Sénégal am na lu bëri lu muy def te c'est pas rendu visible mm-hmm. par exemple am nga Sénégal bi président Macky sa di joxe c'était le 4 Sadio mm-hmm. il a joué le 2 ou le 3 mm-hmm. bu toppoon xaar avion yi du mën a il a payé son jet privé il est venu quand même loolu c'est des actes très forts bi ñu demee il s'est blessé contre le le le Cap-Vert les médecins ont tout fait et la CAF pour l'empêcher de jouer contre la Guinée équatoriale il a écrit pour dire que c'est lui-même qui s'engage à jouer. Mm-hmm. Parce que les gens pensaient pouvoir le protéger. Il a écrit pour dire que c'est lui-même qui va mm-hmm. qui va jouer. Mm-hmm. am na yu bëri yu bëri. te ensuite eh. moom. Kalidou Koulibaly. Cheikhou Kouyaté Cheikhou Kouyaté. Gana Gueye. waay Saliou euh, euh, non non les les les nga xam ni ay cadre lañu yàgg ci dañoo nangoo. ànd nekk benn. c'est ça mm-hmm. discuter ak ñun de tous les problèmes. Mm-hmm. avant la Coupe d'Afrique. Mm-hmm. durant la Coupe d'Afrique quand il y a problème il y a aucun problème qui est d'or ils prennent un groupe. ils viennent discuter. xam sax loolu sax lañ doxal am nga yéen a wax sànq woy ay ay ay ay cuisiniers ou bien sécurité. quand les joueurs sont venus quand les joueurs sont venus le président les a reçus avec le même groupe tous les joueurs yëpp nangul leen loolu ñu toog ak président président ne leen lii laa xalaat jàppale leen ñoom ñu kontaan ñu ne président ne leen lan ñu ne sécurité bi ñu àndaloon président liggéey nañ fa liggéey bu mucc ayib te booy joxul ñun danañ génne ci li jox leen ñu yokk ci ñu ne cuisinier bi président boo leen joxul tamit président ne leen j'accepte à votre demande jël dara jox leen waaye <laughs> mais palais présidence de la république chaque jour président mu ngi jàppale indi nit mhm. dégg nga xam ni ay kenn mënu leen xam mais tey mu jàppale ñu liggéey ci biir réew mi ñu ne waa du waruñ koo joxal mhm. la ma en tout cas période boobu Macky Sall moom loo ko ñaan jox la période boobu noonu Macoumba